it dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam ndeysaan ah yow mi woote yaa ngi dagg yaa ngi dagg kii bi xaaral may leen ñu tuuti rek tuuti tuuti tey ngeen gis euh, beneen facette boo leen mësul gis ci Coro Maxu Mandela donc euh, may leen ñu tuuti rek yéen ñu woote waaw oh askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër dafa tey mënu leen gis benn nervi de l'homme bi yoon kanamu ñëpp en plein jour. C'est un message de terreur. Ils sont en train de nous dire, le prochain parmi vous qui ose manifester, ce sera à son tour. Hey, frère, ils veulent qu'on voit tout. Ça, c'est une mise en scène macabre et sanguinaire. Ils veulent qu'on voit tout, le sang de nos frères, pour qu'on arrête de réclamer justice et surtout qu'on arrête nos chants révolutionnaires. Hey, donc ça, du yaa ngi gis, yaa ngi gis kii tànge ni muy yoote si biir yaa ngi gis ñu ngi lay préparer psychologiquement si jamonoy dictature yii ñu nar jëm alors kii texu donc euh, ñiy woote la comme ñun ñoo ne euh, euh, ku wootee rek ñu jël au 77 520 88 80 tey ba su waxtaan la tey ba su mbégte la tey ba su jàmm ak salaam la lu ñu doon xaar ay ati ati at tey dañ cee jot dañ leen waxante dëgg allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaw euh, sëriñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax a baax ñoo ngi sant yàlla tey ñiy laajte thème bi lan tey thème bi lépp la tey furtu lañuy def thème bi furtu la lépp lu ñu bëgg a waxtaane nañ ko waxtaane tey nañ ko pencoo tey dem dox dox dem ci tey 24 mars sëriñ bi yaa rek la ñuy déglu. waaw man mhm. xam nga adduna ah, boo loo gis. Mhm. dëgg moo ci am solo. Mhm. nit ki soo nekkee ci dëgg dina mét trop trop trop mais bés mais bés dina ñëw ñëpp xam na yaa nekkee ci dëgg dëgg mm-hmm. c'était sui maa lay suivi maa koy wax de maa lay suivi bu baax coro coro ma xamante la jërëjëf mais gis nañ commençant par yo am ba ma àgg ñu ne commençant par yo gis ngeen gis ngeen nooteel ak ak jaay doole bu ñu def yëpp mi ngi nii lépp lépp jeex na tey. jeex na tey. Mhm. ñëpp ñu doon nekk di wax par exemple di wax Ousmane Sonko def na lii wala Diomaye Faye def na lii mooy journaliste yi ñoom ñu moom du ma ne journaliste mais les faux journalistes. Mhm. dañ leen a yónni woon rek ñooñu ñëpp dañ leen a yónni woon pour ñu divertir askan wi. exactement alors que askan bi askan bi mu ngi ko waatee yeewu nañ léegi. wallaay laazim. donc gis nga mun naa la wax benn affaire. Hmm. affaire Ousmane Ousmane Sonko. Hmm. wallahi laazim man musuma ko woon gëm. Hmm. Ousmane Sonko ci boppam depuis deux mille depuis avant deux mille dix neuf. première bu mu génnee def déclaration bokkoon naa si ñu ko gën a contre. mais dama toog. ma ne non man du may toog ma contre nit ki nii pour dama ko contre il faut ma déglu waa ji lan lay wax est ce que luy wax dëgg la wala du dëgg. Mm-hmm. bu ma toogee daf ma doon jaral ma dugg sama YouTube dugg paas Ousmane Sonko di déglu lu muy wax lépp lépp lépp lépp. Mm-hmm. bu ma déggee mu wax ba pare wallahi lahazim depuis boobu la ma ko convaincre sama kër sama famille sama yaay sama sama sama ñoom yàlla nekk noonu ñoom mais mais léegi ñoom cent pour cent du ma cent pour cent Ousmane Sonko de cent pour cent patriote leen mm-hmm. donc loolu yëpp ñu ko dem mooy comme ça genre nga xam ne c'est des journalistes yoo xam ne ay journalistes lañ mais nekkul journaliste yoo xam ne dañ leen yónni journaliste yoo xam ne dañ fi nekkal peuple sénégalais bi mm-hmm. donc loolu yëpp vraiment te démb contentement bu rëy lañ am pourquoi ñu am contentement parce que ñëpp ñi xam ne àndul woon nag ak Ousmane Sonko lu nekk lañ doon wax Ousmane Sonko bandi la Ousmane terroriste la Ousmane Sonko salafiste la loolu yëpp démb wan lañ ne luñ doon wax yëpp ñoom du dëgg ñoom ñooy bandi ñoom ñooy terroriste ñoom ñooy salafiste yi mm-hmm. donc contentement la am bu baax démb nelaw wallahi la azim te bu ma xëyee di liggéey sax xaw ma nu may liggéey ndax gémant ba gëdé bu nelaw ndax suivre affaire wallaay dëgg la <laughs> jërëjëf. jërëjëf maa la gën a kontaan merci beaucoup merci à vous aussi donc ñu koy gàttal képp koo xam ne rekk dugg nga ci live bi euh, mën nga gaawantu wax li nga bëgg a wax may sa moroom wax li mu bëgg a wax nee naa leen tey tout est permis tout est permis du coro rek moom moo war a toog di wax lillaahi wa suuli woote leen ngeen wax seen li ngeen sentir ci seen ay biir xol wax leen ko tey tout est permis allo salaamaaleykum. aleykum salaam sëriñ bi tur bi naka la foo ñu woowee. waaw maa ngi tudd sëñ Saliou maa ngi wootee Touba. sëriñ Saliou ziar nañu la bu baax a baax borom tur bu sell bi nit ziar waa Touba gépp. waaw delloo ziar baax rek la ñuy déglu. waaw benn nañ de macha mhm. euh, bi mooy yirim mooy mooy ma jàmbal ma jàmbal mooy yirim. tey amul tem loolu dama ko def moo tax ma def ko parenthèse. loolu dama ko def rek sama affaire la man ak ñoom mais dama bëgg tay ñu def fourre-tout thème bi tout la lépp loo xalaat diggante démb ak tey lan nga ressentir lan nga gis lan nga gis ne yàlla suñu borom moom la dogal diggante démb ak tey ci xolu jaam ñi. waaw euh, li may wax mooy nit ñi war nañoo dellu seen xam. Mhm. dañu xam ne yàlla noppi na démb tey soog a ñëw. Mhm. te lu yàlla dogal. Euh, teel ko nangu rek man loolu laa jàngate ci mbir mi quoi parce que li ma li ma a métti sax mooy damaa gis tey ñu bari ñoo xam si ñi ngi ñëw di rejoindre euh, coalition Diomaye mm-hmm. mais seenu seenu ñëw ci coalition bi sagul kenn ko c'est vrai parce que ban nangu ban nangu jotee nanguwuñ amuñu benn apport mm-hmm. gis nga waaw voilà très gis nga nit dangay ngay da ngay da ngay da ngay nangu dogal maanaam am na loo xam si bu ko yàlla defee ci doomu aadama bi da koy nangu da koy teeloo a nangu mm-hmm. te loolu loolu la Sénégalais yëpp gis tey mooy euh, Ousmane Sonko yàlla moo ko def ci xol doomu aadama yi. Mm-hmm. nit ñi nit ñi bëgg ko lool macha allah. te yàlla yàgg na ko signalé a ah, mais dafa am ñoo xam ne si ne dañoo gëm moom rek gëm gëmu rek lànk na duñ gis. Mm-hmm. waaw beneen jàngat bi ci des mooy euh, suñ borom subhaanahu wa taala ku mu bëgg rek lay teg nag. dëgg la ku xool Ousmane Sonko fi mu départ ak fi mu agsi mhm. loolu loolu loolu waxuma la accès politique bi dama dépassé ci wàllu politique bi quoi mais damay jël ci mbiru doomu aadama quoi ak digganteem ak yàlla mhm. mu départ ak fi mu agsi tey dafa dafa dafa doy bu baax te loolu loolu ñi nga xam ne ay boromi xel lañ te am am tuuti toq toq ci ngëm yàlla dañuy wax taxawal laa mhm. xamoon xamoon nañ ngóor si fi mu jóge ak ak fi mu jëm ñi nga xam ne yàlla may na leen tuuti ci ngëm yàlla ci leeru xol rek xamoon nañ lool. Mm-hmm. ñi nga xam ne seen xol dafa lëndëmoon ba nga xam ne du duñ gis wala ay naa naafeeq lañ ñoom rek ñoo taxawoon xam nañ ko sax mais dañoo lànk parce que yàlla sax ñi ko gëmul xam nañ ne yàlla existé am na moo bind asamaan moo bind suuf mais dañoo lànk na duñ ko gëm. wallaay. waaw loolu kenn mënu ci dara loolu mbiru suñu borom. Mm-hmm. waaw mais daal su may daanale mooy. Mm-hmm. Sénégal yëpp kontaan bëgg nañ te man gëm naa ne incha allahu rabbi réew mi bu tegoo ci loxoy Sonko ak Jomaay Sénégalais yi dinañ Sénégalais yi dinañ gis dëkk. Mm-hmm. xam nga dëkk dañ ko daan dégg rek waaye danañ ko gis ndax gëm naa ne lépp dana tegu dana tegu ci yoon. Mm-hmm. waaw système bon bi nga xam ne daf ci nekk yàgg fi lool sama classe gi di ci di ci di ci di ci di ci di ci di ci euh, nuñ nga xam ne ñun mënuñu. sama classe bu ñu juddoo ba tey mën ñoo gis seen bopp ci réew mi mhm. xamuñu ne sax état am na ci réew xamuñu ne état am na ci réew mi parce que amul dara loo xam ne si mën nañoo sentir que ni ñun ci Sénégal lañ bokk état bi mën ñuy jariñ mhm. contraire ba rek la ñuy gis cest mooy ay nit yoo xam ne si xëy ñu gontuñu mënoon na ñoo moom entreprise bi mënoon na ay actionnaire lañ ci lii mënoon na ñoo moom tool yi di dund am train de vie boo xam ne si marre de in si kenn mën la ko expliquer fan lañ jëlee milliards yooyu xaalis boobu fan lañ koy jëlee. moo jaaxal ñëpp. système bu bon boobu nag la fi Ousmane Sonko bëgg a jël nit ñi nag nañ xam ne système aw doxalin la du ay nit. Ousmane Sonko boobu ay nit système lay xeex système mooy ab doxalin boo xam ne dafa nekk ci réew yàgg fi. Euh, ñi koy doxalee te système te doxalin boobu baax doxalin boobu la Ousmane Sonko bëgg a jëlee. Ousmane Sonko amul problème ak benn nit parce que. Mhm. Sénégalais lañ dañoo yem même même euh, droit ci réew mi Ousmane Sonko xeexul nit système lay xeex système ab système nag ab doxalin la doxalin boo xam si moom doxalin bu bon doxalin boo xam si baaxul doxalin boo xam si depuis soixante ans wala lu ko jiitu ni ñu ciy diriger di ñu ciy jiite Sénégalais yi di di ci dund benn Sénégalais boo xam ne si man du ca gis sa bopp amul mhm. benn nombre bu ndaw moo nekk ci kaw di ca gis seen bopp mhm. majeure partie bi gisuñu seen bopp waaw loolu nag la fi Ousmane Sonko bëgg a bëgg a dindi. Mhm. injustice bi fi nekk xeex xeex caaxaan bi fi nekk ak tappale yi fi nekk ak ak ak jubadi gi fi nekk. ak mhm. jaay doole mhm. loolu la fi Ousmane Sonko bëgg bëgg a dindi gis nga Ousmane Sonko. d' accord moom waa mën naa mën na mën naa ne réussir na mission réussir na mission. réussir na ko. donc dañuy def ku ci nekk rek ñu jagleel la benn cinq minutes bu baree ba bari cinq minutes bu néewee ba néew trois minutes pour ñu mën a may ñeneen ñi. Euh, ñu mën a dugg ñoom aussi wax par rapport ak li ñuy euh, xalaat ak li ñu bëgg ci seen ay xol. donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci woote bi waaye itam sa participation am na importance donc dañ leen continuer euh, daal di woote bu baax a baax xaar ma woo waa wala ma jël mon frère mon frère Gas El Salvador ñu xam ko ci diiwaanu Saint-Louis mu nekk ab activiste nekk koo xam ne yàgg naa teewal li nga xam ne moom moo di Saint-Louis ak dëkkam waaye tam yàgg faa def lu baax allo Gass. waaw Thioro maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar baax a baax moo frère yow rek la ñuy déglu tey. oui am kontaan di dugg si biir bi. Euh, ba pare di la wax félicitation tey euh, daanaka si corps bi nga nekk muy corps euh, reporter journaliste tey Thioro nga bokk si ñoo xam ne Euh, dañ leen war a takkal galon bu nguur gi jeexee parce que bi xeex jotee da taxaw xeex euh, sumi sa veste sumi sa lépp taxaw euh, xeex ba tey jii nii yàlla may la ndam ci lii nii parce que yow xeexul lul injustice donc félicitation muy yow muy Salma muy Mati Sarr Niang yéen ñëpp dama leen di wax félicitation merci beaucoup mon frère looloo ñu war. voilà vraiment dama kontaan ci yéen moom man toujours dama leen di dama leen namoo à chaque fois damay bind sama poste Sénégal bu nu bu mel ni Coro. Salma ak ñoom mel ni genre Macky Sarr ñaar yooyu dinañu avancé. Mhm. Euh, léegi tey jii dama damay wax rapport tey si déclaration bi nga xam te ne tey Sonko euh, def na ko. Mhm. ma am ci benn gis-gis euh, bëgg ko partage ak sénégalais gis-gis bi ma ci am bokk na ci mooy. bu njëkk tey daawoo dégg Sonko def déclaration mhm. di tudd di indexé nit. directement nit. tey c'est la première fois mu dem parce que dafa xam ñan la ko sekkal tey Sonko tey boo xoolee ñun ñi jàng communication xam naka la ñuy communiquer dégg communication xam nañ bu baax fa lay waxee sénégalais tey buy wax bay tudd Amadou Ba di ko répété euh, ça veut dire que ni xam nañ ni élection yi moom ak Amadou Ba la xam nañ ni élection yi ñaari nit ñoo ko sekk muy Pastef ak ak coalition euh, Benno Bokk Yaakaar tey ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar xam nañ ni candidat bi. du candidat bu am poids boo xamante ni Sénégalais yi mën nañu ko voter mais candidat boo xamante ni la dañ koo ngemb candidat boo xamante ni la ay pexe lañ ko fi bëgg a tegee parce que tey euh, Amadou Ba dafa nekk candidat wu ñi nga xamante système bi léegi nag donc actuellement élection yi dafa nekk élection système contre euh, anti système te ñëpp xam nañ ni système dafa yaatu système bi euh, sëriñ dóorkat yi ñu ngi si système bi marabu kii journaliste dóorkat yi ñu ngi si système bi góor jigéen ñi si système bi euh, euh, euh, presse étrangère mi ngi si système bi président yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si àll bi ñu ngi si donc ñooñu booy xeex ñoom da ngay jël seen défense léegi fi soo ko waxee mooy nañu nañu nañu bi njëkk mooy ñun ñëpp képp nga xam te ne sénégalais la nga nga aspiré nga xam te ne mooy changement na la ko jaral si koor la ñu nekk ñu dem ci préfecture yi récupérer carte électeur yi ñu tooga ak ak ak toogaale ak moom. Euh, xaar le 24 ñu dem génn dem vote yi massivement parce que xam nañ ni gars yi na ñu teg seen benn appareil bi nga xamante ni bu 18 heures jotee rek dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy génne seen ay résultats euh, fictifs wax ni gagné nañ bu ko defee ñenn ñi nga xamante ni ay candidats la bokk ci ci ci ci ci présidentiel bi ñoom ñoo njëkk a publier seen ay page wax ni. accepté nañu victoire u Amadou Ba ba pare xam nga genre yooyu noonu bu ko defee ñu jéem a diaboliser nit ñi bu ko defee dafay nekk euh, Pastef contre dix-neuf candidats yi parce que dix-neuf candidats yi ma lay wax ni Dior. Euh, mhm. euh, boo si doon jël dix-neuf yi boo si doon jël seize yëpp si seen bi lañ bokk donc ñun ñëpp ñu ngi si derrière Amadou Ba te xam nañ ni bis bu génnee bis bu Amadou Ba bis bu ñu génnee ay résultats te avant ñu génne ay résultats. pas danañu teg ay police partout ci Sénégal bu ko defee comme dañu daan def rek d'habitude bu ko defee bu heure bu jotee defee presse étranger bi gaawantu publier candidat yi seen bopp gaawantu dem wax ne Amadou Ba gagné na parce que ñun ñoo fa donc léegi loolu pour ñu bañ ñu bañ ñu bett nañu sécuriser de vote dem jëlee ci électeur yi teel a dem voté ji bu ñu voté nañu toog ci ci ci ci ci bureau de vote euh, toog doog jëm na si centre de vote yi ñu xaar yi foofu ba pare. Euh, buñ collecté PV ñu xool ñu partagé ak sénégalais yi parce que ñu ngi ko sekkal dañoo gaaw système bi dafa am ay journaliste nga am ay sëriñ gis nga tey ñooñu nga gisoon ñu demoon euh, ca dialogue ba tey ñun ñu ñëpp ci système bi lañ bokk te ñun ñu ñëpp bëggul système bi arrêté ñun ñëpp dañoo bëgg système bi di continuer ñuy noos sénégalais yi di sonn euh, nit ñi di feebar ñu faju xale yi di di di du am ay moyens pour dem jàngi école di dee ci gaale ci ci ci ci yoonu suuf si donc loolu laa bëggoon partagé ak yow Euh, ak followers yi nga xam ne ñu ngi lay suivre ñu dem jëli ji carte d'identité yi nañ ko jaral parce que ñii buñ fi toogaatee vingt ans après la ñuy jugaat ci pouvoir bi te vingt ans après gis nga li ñu nii buñ ko dundaatee dañuy gën a nekk ci Sénégal yi donc di la jaay jëfal bu baax a baax ba ñu guddal am na ñu nekk ci ligne di xaar. di mhm. di am kontaan ci yow. merci beaucoup Gas merci beaucoup mon frère liggéey bi yëpp ñoo ko bokk ñoo ko sëkk gis nañu aussi yow ni nga teewalee Sénégal ni nga teewalee tey jii euh, sa dëkk di euh, Saint-Louis donc yow aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci ñu ñuy jaajëfal nga bokk donc comme ni ma ko waxee sama gars yéen ñi may seetaan tey tout est permis génn leen ngeen wax seen impression par rapport ak li ngeen di sentir seen i ay biir xol bu leen ko denc nañu ko waxtaane nañu wax jëm ci li nga xam ne tey jii moom mooy élection présidentielle yi ginnaaw li fi xew démb ak tay génn leen ngeen wax seen impression par rapport ak li fi xew démb ak tey il faut ñu waxtaane ko yàlla lu mu mënul amul te yàlla moo nekk ci lépp allo. allo. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam waaw tur bi naka la foo ñu woowee. Ah, ma nga damaa bëggoon nag nga baal ma tuur bi coro <laughs> baal naa la ko baal ma ko rek mhm. waaw dama ne woon tey foog ma participer parce que vraiment sama xool dafa sedd depuis démb waaw mhm. dama perdre sama voix sax depuis démb tey dama liggéey xaw ma lu ma liggéey ndax xool bu sedd mhm. parce que yow danga bokk ci ki ma marqué histoire dama ko suivre A ba mu choqué ma xaw ma def tuuti traumatisme nag parce que dama am cas bu mel noonu taaw problème yi comme mooy waa jooju ñu kii woon patriote boobu noonu loxom bi tasoon ah d'accord waaw ci taw manifestation bi mhm. dafa fekkoon ma nekk en état juste début grossesse mhm. léegi Sen TV moo wane woon image bi parce que maa ngi ko doon éviter sama jëkkër moom moo doon wax pour xool image yi may mm-hmm. mais juste ni ma ñëwee rek taseeg moom ci image bi si télé bi. Mm-hmm. ma def avortement. est-ce que yàlla. parce que mënu ma ko woon supporter. Mm-hmm. instant bu ma traumatisé parce que métti woon na métti woon na coro. wallaay bu baax sax Massa Sénégalais yi nañ. Massa loolu c'était en c'était en 2021 oui. ndeysaan massa c'était en 2021. massa. nga gis après loolu xeex bi continuer nga jóge hôpital ñëw nga gis xeex bi di continuer xale yi di xeex ñi ñu leen di rey image yi gën ma traumatisé. ndeysaan moo tax tey bu ñu demee ba egg fii sama xol dafay dafay tooy parce que jour bi dama ko doon xaar. ndeysaan. stade bi ñu toll nii xeex bi jeex. wallaay traumatisme bi jeex. wallaay dama ko doon xaar. Mm-hmm. parce que dafa métti. Mm-hmm. xoola de gens ay xale dee dee pour xoola pour loo xam ne ñu xëy nii nañu yaa rien billaay c'est dur c'est dur lan moo ko fi jaroon dara lan moo ko fi jaroon mm-hmm. dara jaru ko woon coro wallaay dara jaru ko woon ay bakkan mënoon naa supporter dépp dëpp mënoon na def dépp mais waruñu woon rey mm-hmm. waruñu woon rey mm-hmm. ay doomu jàmbur Mhm. ñu rey leen nii nul ñu ne raat dara jeex na nii wallaay waaye yàlla de koy buur mhm. yàlla da borom ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu Ousmane Sonko mi ñu wan yoon bi mhm. yàlla fay ko ba ki mu teg loxo muy jomaay yàlla jàppale ko ñu eggali ko mu nekk président amin amin waaw mu nekk président nag parce que métti na daal métti na mm-hmm. Mm-hmm. am na ay xarit yoo xam ne ñu ngi si décédé ñii tëjoon nañ leen prison ñoom ñëpp waaw sama xel yëppam si ñoom maa leen di ñaanal yàlla na suuf oyof seen kaw amin yaa di di ñaan nag ngir yàlla bu ñu bu ñu bàyyi mm-hmm. neex na nouvelle yi neex na trop mais nañ instant yi nañ gën a dëgër ñu dem jëli carte yi eggali liggéey bi buñ bàyyee bien sûr bi bii te cat bi lañ nekk. Mhm. luñ gën a mën a def bu ñëpp dëgër dem récupérer carte yi dem voté ji sécuriser bureau de vote yi. Mhm. surtout ça. Mhm. bu ñu bàyyee ko bu waaw parce que lii nii lii nii nii ñoom xam nañ ne bu ñu waddee tey. dina am lu métti si ñoom. bien sûr. moo tax bu ñu bu bàyyee. Mhm. yàlla baax na maa ngi lay ñaanal yow tamit coro jàpp nga si combat bi yow Pape Alé. noonu la fleur da ngeen nekk ñu ma la c'est normal. waaw ngeen ko ñàkk ko yëg ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm. jërëjëf merci liggéey liggéey liggéeyal Sénégal yal na leen ko yàlla faj. amiin yaa rabbi amiin amiin jërëjëf jërëjëf. merci Thioro maa merci beaucoup bye. donc euh, dañuy dem jëli keneen ci le 77 520 88 80 mais ngeen jéggal ma ngeen baal ma parce que il faut ma euh, jëli sama nawle Euh, nawle d'amour il faut ma dem jëli ko yow mi woote dimbali ma rek maa ngi ñëw léegi jël la incha allah parce que sama nawle mi ngi may def signe que dafa bëgg euh, participer man je pensais que sax instant bi nii amul jot euh, amul jot ndax liggéey bi ngeen baal ma sama nawle laay dem jëli moom aussi mu wax par rapport ak impression diggante démb ak tey ak li fiy am ngeen jéggal ma yéen ñiy woote ñëpp dinaa leen jël kenn par kenn incha allahu rabbi ku ci nekk rek wax sa impression par rapport ak euh, ni nga gisee li nga xam ne moom moo xew diggante démb ak tey mais aussi euh, lan ban jàngat ngeen ci def bëgg naa aussi ñuy génne ces genres de mots ban jàngat ngeen ci def allo. allo bi. oui Nawlé Damour. waaw naa la. delloo naa la ziar alhamdulilah mbaa sa xol yaa sa xol a ngi féex. laay fi nekk nii de. ah. ne lépp a ngi lépp a ngi baax. lépp a ngi mojji euh, mojji. lépp a ngi tolloo <laughs> fi mu ne nii li may li may wax rek euh, suñu naqar naqaru naqaru askanu Sénégal moo ñuy moo ñuy waaj a dëddu. wallaay ci sama gis gi ci mm. sama gis-gis te mm. dama koy wax très sincèrement maa ngi lay maa ngi lay ziar di ziar internet yi sax maa ngi tàmbali di nuyu ma leen waaw <laughs> ndax euh, euh, émotion li may wax rek oh, émotion parce que dañu nekkoon ci ay jafe-jafe nekkoon ci ay guddi yu nga xamante ni bët setagul mm-hmm. parce que nag douze ans nga dund ko ci ay jafe-jafe douze ans nga dund ko ci ci ay naqar douze ans ñu jàpp sa askan sa ay njoñ sa ay frère sa ay sœur sa ay tante yaay doom ku ci nekk tey jii mën ngaa Euh, koo xamante ni sa dëkkandoo la wala sa jege ñaale li muy dund te mhm. kenn tegu ko ku dul nguur gi nga xamante ni moo fi nekk te nguur googu coro li ci métti mooy mhm. ñun ñi nga xamante ne ñoo di askan bi euh, pouvoir bi mu yor ñun ñoo ko jox mhm. ñun ñoo ko jox ndax ñoo demoon ca mbañ gàcce ga li may wax naan man personnellement dama ci am lu ma métti parce que damaa bokkoon ci askan bi nga xamante ne tey dañ koo faloon amoon ci moom yaakaar loolu et j'ai été super déçu bi ma gisee tey ñi mu doxalee ak ñun Mm. ñu jàppuñu dëggatuñu jàppuñu yéenewuñu lu dul kaso jàppuñu jël suñu dereet ak ak tuus gi nga xamante ne moom lañu am mu mucc ko ngàcc ko ba mu jeex tàkk ba pare eh, mel ni ku ñu mépriser loolu laa doon wax démb que euh, je ne peux pas comprendre tey collège bi nga xamante ni moom la Macky Sall am jëmale ko ci askanam. Mm-hmm. te chaque fois suy wax da ngay liir colère boobu ci ay waxam soit ci kàddoom wala ci kanamam ak naqari deret goo xamante ni yow doo comprendre lan la parce que comme li may wax bokk na ci sénégalais yi nga xamante ni yàlla da koo teral ndax teral la weesuwul nga mm-hmm. jugee ci famille boo xamante ni c'est une famille démunie li mm-hmm. may wax tey jii askan woowu noonu tey boo leen diriger képp koo xamante ni dafa bokk ci famille boo xam ne maanaam loxoom jotul ci jot jotul ci ginnaawam war nga koo mën a comprendre parce que jaar nga ci jafe-jafe yooyu noonu. Mm-hmm. yow yaa war a nekk nga xamante ne tey jii yaa war a jug foofu seen rongoñ andil leen ay saafara ci seen ay jafe-jafe waaye waroon nekk koo xamante ni da ngay ñëw di leen yokk ay problème parce que boo xoolee sa jaar-jaar yow leen nga si war a jël comme leçon pexe ba yow fi nga jaar ci métit sa askan wañ faa jaar ndax dund nga ko. Mm-hmm. mais comme rek woo gis loo gis rek am na lu tax te tey. c'est pas le hasard te qui se passe. Mm-hmm. tey gis nga Coro. Mm-hmm. matin man dama ne woon teg di déglu. waaw parce que dama ne woon gis nga ci conférence de presse bu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bii. Mm-hmm. damay tëju sama néeg déglu leen attentivement. attentivement. am na on a un peuple exigeant. on doit être exigeant. parce que nag dañu sonn. gis nga tey jii ni ni ni ñu ku tëri Ousmane Sonko dafa am lu tax. wallaay dafa am lu tax. yaakaar. gis nga yaakaar te ku ci nekk yaa koy xool di ko di ci gis sa bopp. di ci hmm. gis fa anam bu ne nag ndaxte su waxee nga riir ci ay kàddoom dëggu. Hmm. su naw ko ci personnalité gis nga yooy ak jikko. wallaay dafa am solo ci nit. Hmm. dafa am solo ci nit boobu man dama ne woon tey seen conférence de presse conjointe bi damay tëju ci sama néeg. du ma ci déglu kenn déglu ko man sama bopp attentivement jël ci sama ay jàngatu bopp. wallaay personnellement. te mhm. personnellement te gis nga dafa amoon benn point boo xamante ni c'est-à-dire euh, mënoo mën naa ne stressé woon na ma stressé wu ma woon. mooy ban copie parce que mooy mooy mbirum mbirum reporté élection bi parce que depuis loolu ñu ngi naan dañuy rebattre les cartes. Mhm. dañuy rebattre les cartes. Mhm. te gis nga bi mu ñëwee ci point boobu noonu. nde seet si nañ ko proposé nañ ko. pour ñu reporter élection yi ngir moom jëmmam mu bokk moom ak keneen te on sait keneen kooku Karim Wade la. bien sûr. mu leen carrément que il n'est pas question de reporter cette élection gis nga coro bi mu waxee loolu. Mm-hmm. barke Cheikhul Khadim gis nga mënuma la wax li ma ressentir. ndeysaan. loolu day dëggal ni day dëggal ni maanaam projet bii nii muy jaay askanu Sénégal ba ndaw yëpp topp ko dafa dépassé jëmmam ci dafa dépassé jëmmam ji ndax nee na moom lenn rek moo ko ñoroon tey jii mooy projet bi am koo xamante ni dina ko mën a téye passé la balle. moo ci desoon. Mhm. neexoon tey jii mu ne naa bokk ah, parce que amoon na bi tey jii ñeneen ñi nga xamante ne jël nañ seen euh, recours yóbbu ko lan lañ doon lijjanti mooy naa bokk. bien sûr ñu demoon ca dialogue ba tamit naa bokk lañ doon lijjanti. Mhm. te naa bokkam dañ ñëw ba fekk ko Cap Manuel ne ko yow mun ngaa bokk yow neel waaw rek mu ne leen déet. ndeysaan aka gore ma dafa man loolu rek gis nga bam bi mu waxee loolu man dafa mel ni cest à dafa am benn poids buñ ma teggiloon parce que man bokkoon naa ñi doon toog ci plateau télévisé yi di ko défendre défendre ma ko parce que dama koo dama koo dama ko xam parce que man Ousmane Sonko musuma koo gis barke Cheikhou Khadim dëgg la ko man kay mën naa ko seede wallaay laxansim par conviction nga ko doon defee lépp conviction nga ko doon defee conviction kese mm-hmm. du lenn ta toog ma toog mësta wax ma wax déedéet mësta am. dëgg la injustice bi mu doon dund rek ma koy ñaawlu na xam ne du yoon li muy dund du yoon. gis ko tamit ci dëggoom ak projet bu am solo bi nga xamante ne mu ngi koy jaay sénégalais yi ba tax na tey mu attiré ma ma bokkoon nag ci ñi doon toog ci plateau télévisé yi mu jëloon ci nag ay risque di ko défendre te yàlla rek tax. Mhm. kon tey jii bu ñëw woon maanaam waxee neneen wala mu defee neneen. ah duma la ko nëbb de dinaa am gàcce lool te dinaa am tamit euh, loo xamante ne dina ma metti ci sama bi xol. dëgg la waaye lu ma daan wax ci moom lan laa la daan wax. waaw te saay tay su ma amaan xel ñaar wala loo xamante ne dama koy laajte tamit su ma ñëwee si yow lii lii ma gis tay ci ay kàddoom lii da ko yàgg wax te nit la koo xamante ni. ku am kàddu la mm-hmm. nit la koo xamante ne askanu Sénégal mën nañ ko def confiance mm-hmm. maanaam man nit eh, nit la koo xamante ne ku am ay valeur la am ay conviction surtout bien sûr ku am diine la te ragal yàlla mm-hmm. te loolu aussi tey liiraat nañ ko ci ay kàddoo man daal man euh, dama dama dama am tey daal euh, loo xamante ni daal dafa mel ni benn fardeau boo xamante ni wàcc na ma parce que je peux dire que <laughs> en fait Ousmane Sonko moo doon def conférence de presse mais ñun ñëpp dañu toogoon ci at ci nen parce que nekkul question de euh, euh, euh, parce que ñun ñëpp dañu nekk ci benn milieu boo xamante ni di liggéey coro. billaay mais on sait que ñëpp doy na waar da ngay défendre benn affaire pour conviction mais tey am na ñoo xamante ni ñu ngi socc seen bëñ. pour facile de la reetaan te moo ne ne buñ la reetaanee seen musiba la ñuy reetaan parce que yow lenn nga bëgg mooy bu jëmal seen réew kanam. wallaay lazim dëgg waaw kon tey jii bu demee nii. ñëw gën a dëggal tey jii ñun jortu gu rafet gi ñu amoon ci moom dañ koy dañ koy rafetlu. bien sûr kontaan ci bu baax baax tey ñaan yàlla lii nga xamante ni sumb na ko moom Bassirou Diomaye Faye te gis nga grandeur gi mu wane. Mhm. man si guddi moom dama. effacé wu complètement. effacé wu imagine toi coalition Diomaye bi lépp daf ko buux Bassirou Diomaye Faye. Mhm. parce que xam na ni sénégalais yi bëgg nañ Bassirou Diomaye fay waaye moom la ñu gën a namm moom Ousmane ko Mm-hmm. te xëy na bu ñëwoon taxaw ak Bassirou Diomaye Faye mën na voler la vedette à Bassirou Diomaye Faye mu effacé wu carrément. Mm-hmm. yooyu yëpp ay jàngat la cest à ay message yu sew la yoo xamante ne mën nañ ko décortiquer te daf ñuy gën a wan kan mooy la personne wala l'homme Ousmane Sonko c'est important. Mm-hmm. c'est important yooyu yëpp dafa nekk ay sew sew yoo xamante ne day wane jikko jikko nit ki est-ce que moom nit jëmmam kese moo ko intéressé. est moom ay intérêt kese moo ko intéressé oui noo te yooyu yëpp tey jii wan nañu ne que c'est pas le cas parce que si c'était le cas dina jéem bokk non seulement mais su génnee donte joxoñoon nañu Bassirou Diomaye fay aussi dina jéem a imposer boppam ah. bien sûr bëgg nañ ko def nañ ko bopp mais deful loolu. Mhm. te ba mu ñëwee c'est-à-dire man en fait avec lui man damay bàyyi xel geste yëpp. parce que comme comme comme ni ma ko waxee léegi rek maintenant on doit être exigeant parce que dañu sonn. Mhm. donc ba mu ñëwee toog. jug daal di jugaat jox loxo Bassirou Diomaye Faye ni ko <laughs> monsieur le président c'est que coro man yu sew yooyu ma daf may daf may neex. day neex barki Serigne Sall nit koo xam ne dalaa wan ne ah non yow gis nañ fi kat koo xam ne nii eh, yow yaa yor tous les moyens du monde Sénégal say sa loxo la la tegu nga am koo xam ne da nga ko war a puus mu dem nga koy fa kastal. waaw kay jiital ko ba pare di ko fa kastal. wallaay. mu ngi noonu moo tax tey ba mu defee loolu daal man daal dama kontaan am ci lu ma neex am ci fierté loo tey ñaan. macha allah tey ñaan. Mhm. yàlla bu yaakaar tas. mais nawle yàlla bu yaakaar tas. nawle après Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko am na sunu nawle yoo xam ne ñoom la ñuy woowee les hommes de média et les femmes de média ñenn ñi ma sañ a tudd mooy ñi nga xam ne nii amuñu woon ngor démb ba di ko jaay ren lan nga leen di wax ban message nga leen di envoyé parce que tam yow sa message dafay porté pour nga wax ak ñoom. man de comme li ma la doon wax léegi rek parce que maa ngi lay naan. Mm-hmm. dañu nekk ci milieu bu am bu doy waar. Mm-hmm. dañu nekk ci millier boo xamante ne am na ñoo xamante ni tey dañoo socc woon di xaar Ousmane Sonko waxee neneen wala mu wax ni bi mu nekkee ci kaso ba leneen xewoon na fa mm-hmm. uteeg ñun liñ doon défendre wala conviction yi ñu doon défendre ci plateau yi doon wax ni Ousmane Sonko nii la mel ak nii lay doxalee est-ce que yaa ngi dégg. bu baax parce que ñoo reetaan. mu mel Sénégal moo fi am. Euh, doguma la dogguma la doom yaay euh, dafa am ñoo xam ne ni dañoo dem ba waxuma la Ousmane Sonko ñoom safadi leen mais ñu ci suñu bopp dañoo defoon ay noon ci plateau yi def ñu ay noon diggante télé ak télé parce que euh, le fait que ñoom ñu bañ Ousmane Sonko xëy na yow amoo mbañeel ci moom wala gis nga injustice bi ñu koy teg nga koy défendre ñoom ci lool ñu jaar fa bañaale la ba bëgg sax yow nga rus foo toll te Ousmane Sonko mii tey ji rusloowu la. déedéet loolu na moo tax li ñuy wax te gis nga défendre dëgg dafa neex. Mhm. defendre dëgg rek te yàlla tax dafa neex comme li may wax rek gis nga ñooñu tey jii fas yéene euh, euh, jug xëy xëy rek jug def la noonu. du mhm. problème personnel boo am ak ñoom parce que sekkoo ko ak ñoom du ñoo yow ànd na lu neex ba ngeen bokk milieu bokkoo leen ay conviction mhm. bokkoo leen ay yarin. da ngay défendre benn cause parce que da ngaa jàpp ni lii mooy dëgg ñu mere la ci sa dëgg googu ngay défendre. Mm-hmm. lii moo amoon Sénégal mais li may wax rek bokk na ci bilan Macky Sall tamit gis nga coro war nañu kii et kii. Mm-hmm. au delà des hommes même presse bi tey xam nañu kan mooy kan. bien sûr na bokk na ci man bilan bi nga xamante ni au moins ñun mën nañ ko rafetlu parce que gis nga bu ñu jógee ci lii nii dinañu xam Sénégal kan moo ko bëgg ak Sénégal ñi nga xamante ne dañ fee nekk pour seen propre intérêt. Mm-hmm. pour seen propre intérêt di wax nax lan dañ laa sexal xaalis. mere ay nit dem ba bañ leen parce que yëf yi dafa mujjee nekk mbañeel. Mhm. gis nga animosité bi ñu doon wax ci langue politique bi dafa dem ba am ci presse bi. bien sûr te leen euh, euh, waral lu ko lu dul ay kaaw Ousmane Sonko kaaw Macky Sall ah. Mhm. te ñi doon nekkoon de ñi nga ñi nga xamante ne dañ doon wax dëgg ba ñu mujjee ñoo tuddee euh, journaliste Pastef gis nga man dama dem ba finalement boo ma nee journaliste Pastef Coro est-ce que tu sais que man ci yow. lépp na sa conviction. parce que dama naan buñ ma tuddee journaliste Ousmane Sonko rek c'est parce que dama radical. waaw yaa ngi ci côté dëgg bi wuñ ma da koo xamante ni minuit wala une heure du matin dañ koy recevoir de de gauche à droite wala ñu koy jox quoi que ce soit. Mm-hmm. c'est juste parce que dama radical te li may wax gëm naa ko kon sant yàlla. Mm-hmm. sant yàlla koo ci ndare nag. man comme li may wax rek man. tant pis xam naa man maay kan xam naa li may jaay lan la. ak sama kàddu yi may wax dëgg la ci man te man foofu dama fa yow. bien la ñuy waxee parce que li ñuy wax dañ koo gëm te waxantuwuñu. c'est vrai ci kese lañ waaw. donc donc loolu la après nag le reste amul solo comme li may wax rek ñooñu nga xam ne dañ ñuy mereek dem ba ay mbañeel du jur ci suñuy diggante li may wax rek ñun ñaanuñu yàlla am ñoom at yi ñu am di def li ñuy def. wallaay commencé. Mhm. <laughs> ñaanuñu yàlla am at yi ñu am mel ñoom di ñu mel. wallaay lazim. waaw kon kon nawloowuñu leen. Mhm. bugguñu seen expérience soxlawuñu seen conseil. bien sûr nawle. waaw lii mooy wax ji. li yooy wax ji wallaay lazim. Mhm. kenn du yow. kenn du yow Fall Ndiaga Yaram kenn du yow borom maamu dammeel yi kenn du yow ah. combattre nañu xeex nañu def nañu lépp ba tey jii mbégte ñëw na parce que li ma la wax rek mooy dëgg lañ doon défendre dañoo amoon ay conviction dañoo gëmoon ne dëgg gi mooy Ousmane sonk injustice biñ koy teg waruñu ko koo teg dañoo gëmoon ne mm-hmm. kii di njiite réew mi président Macky Sall tant que ñu ngi koy bàyyi di ko yoonal lii nga xam ne moom la namm ci askanu Sénégal mooy noot leen mooy tour deret mooy damm ñii mooy xañ ñi seen liggéey mooy torturer ñi te lépp nag mu toog fa mu toog ci chaise bi nga xam ne ñun ñoo ko fa yóbbu tey di commandité di joxoñ ay omam di joxoñ ay faamam ñuy dem di def ñaata nit lañ fi jàppalu ci ay post Facebook ci ay leneen ak leneen ñaata nit lañ fi jàppalu te mënuñu leen wax ne leen seen dossier lii moo ci am en commençant par Ousmane Sonko ak Diomaye Faye parce que lépp ñoom ñoo tax ñuy wax dañuy fàtte lépp nañu fàtte suñu bos ñun ñëpp mais li ñu soxal moom mooy lu defar Sénégal te li defar Sénégal du ñun journalistes yi ñoo koy defar déedéet ci homme politique yi lañ ko yaakaar mais yan homme politique yan genre homme politique seen xel lan moo ci nekk bëgg nañ Sénégal am bëgguñu Sénégal est-ce que mën nañoo changer Sénégal nga gis ñaari ndaw yii guñ ci nen après indépendance lañ judd ci Sénégal ñu lëkkaloo ñoom ñii lëkkaloo ñi leen gëm boobu ba tey ñu ànd ak seeni ñoñ naqaroo naqar métitoo métit toroxal jéppi dóor duma lépp ñu toog rek ne la résistance ba may seetaan Ousmane Sonko as y'a cinq ans ou sept ci ginnaaw muy woote résistance laa gëm ne résistance bi muy woote tôt ou tard da ci am ndam parce que su koy wax ay bëtam su koy wax gémmiñam gi koy génne su koy wax kanamam boo amee lecture ci nit ay ndaw lañu mais ndaw yu bëgg lu baax ndaw yu xam lu baax ndaw yu xam lu fu lu baax nekk dañuy taxé de journaliste de Pastef on s'en fout ñoo tey ñoo tey xam lu tax bu ñu ne woon buñ ñu ne woon da ngeen a jaay seen ngor tey ñu ngi koy wax suñuy moroom ñoo xam ne daan nañu bokk ñoom ay plateau ñoo xam ne tey jii bokk nañoo ñoom lu ne ñoo xam ne géewu politique gi ñoo géewu journalisme gi ñoo ko bokk mais tey seen der yàqu na tey sangoo nañu ay deretu jàmbur tey compte yi ñu ubbi pour def ci xaalis bi ñu leen di jox du leen jariñ dara ndax gàccee ngi leen di rey bu ñu ko doon lekk tey ci gàcce lañ koy lekkaale tey kër yi ñu leen jox mën naa ne sax dinañ koy yàbbiwaat ndax lii Ousmane ko di jomaay mii waxuma la journaliste waxuma la kenn koo xam ne rek dangaa xawoon a siiw ci Sénégal ñu am luñ la jàppale woon mu jël tukkee ci régime bii mais lu waay yor lu Sénégal moom di nga ko génne kon ana lu ko fi jaroon tey ana lan noo ko fi jaroon moo tax man bu ma toogee ñu naan ma ay nit di ma fekk ci ay bërëb bëgg maa humilier ndax lan nee nañu parce que dangaa far mais constance lañu wax suñu métier bi dañ cee wax éthique ak déontologie mais lan lañu wax dañoo dem ba ne presse bi mooy quatrième pouvoir presse bi war naa mën a wañ loxo nguur mu def presse bi tey jii war naa mën a jox askanu Sénégal wala askanam information yoo xam ne dañ ciy jàpp ba ilaa yow mi diini dootul dañ tey jii presse boobu sëngeem tey ñun dañoo bokkoon ci ñi siggi ne du ñu sëngeem mukk mukk mukk ñun duñu bokk ci ñuy juutu mukk mukk mukk mukk ak lu mënti am dañuy dax taxaw dañuy daxaw temm temm temm far ak sunu askan te askan wi xamul tax may wax askan wi askan wi génn démb ñoom ñoo génnoon bi Sénégal gagné coupe d'Afrique mm-hmm. ñoom ñoo génnoon bi ñu ko fi amee boobu noonu sunu sunu euh, drapeau national doon flotté ci àdduna wërngal këpp démb lañ ko amaat démb lañu gis ay nit ñoo xam ne joxuñu leen voile joxuñu leen t-shirt ngi ñu jox ñu leen ay jox ñu leen foto kenn ñoom ñoo ko utal seen bopp soo seeni ay maillot Sénégal ñoom ñëpp topp ci benn doomu adama wala ñaari doomu aadama di daw biir ndakaaru mbedd yëpp ñu koy daw démb li ma gis yaakaaruma ko woon ba Bassirou Diomaye Faye place de l'Obélisque mu yëkkati yëkkati kàddu biir sacré kër gii VDN bii nga yëkkati fa kàddu yow xam nga li may wax parce que bi ñuy couvrir ay manifestation VDN ak feneen rek fu ko soriwul ñaari nit yu dajaloo doog fa mën a am ñaari nit yu bokk lu ñuy wax doog fa mën a am anamu tey yàlla sunu borom moo atte yàlla moo ne man rek man maa mën mënoo leen yàlla nag yàlla nag day nattu nit te yaakaar naa ne nattu bu rëy la teg Macky Sall ak nguuram mooy di bàyyi ñuy def seen ñaawteef di leen bàyyi ñuy toroxal ay doomu aadama ak ni yàlla fonkee doomu aadama di leen bàyyi ñuy mer di fuggi fuggi yàlla jox leen nguur rek compal leen tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy nguuram ci ay martabaam jox leen ñuy dof doflu di kelli kelli ci aw askan wu yaru di kelli kelli ci aw askan woo xam ne dañu mature xam li ñu bëgg ana mu tey élection par force recours au recours juge au magistrat magistrat dem nañ bay taqal ay magistrat anamu tey mhm. dinañ wéetoo ak seen Amadou Ba dinañ ko wéetoo dinañ wéetoo ak seen mhm. Amadou Ba mii dinañ ko wéetoo te ba pare ma lay jox nag beneen information seen seen biir ñoom du mës a neex Amadou Ba ak Macky Sall xam nga ci euh, Cheikh Yérim Seck dafay génnoon nee na euh, dafa am kaawu Diomaye fay ak kaawu euh, Ousmane Sonko mhm. loolu lépp dooni ay neefari kese doonoon ay fenn kese mësul wax dëgg tey jii loolu mu doon wax tey gisoon na ko ci diggante Amadou Ba ak Macky Sall da koo ñamewul woon wax mu dippar ñi carte gi pour leurrer askan wi mooy lim liñ leen yàgg a wax ne leen dañ leen di leurrer ñoom les journalistes duurkat dañ leen di leurrer li nga bind ci sa titre bi li nga bind ci sa titre bi rek ne ne Yërim mooy ma jàmbal lu werte wóor la parce que xam lu tax lu werte wóor la Yërim mooy ma jàmbala ah. te bu ñu bëggee te mën nañ dem uti ji seen nawle seen nawle boobu di juutu bu jigéen bi ñu ànd ak moom. wallaay ñoom ñett mën nañoo ànd. ndax ñu bokk jikko doo nga mën a ànd. wallaay laazim ay yoo xamante ne seen i intérêt personnel moo leen mhm. kenn nawloowu leen. ay mag yoo xamante ni nekk ci milieu boo xamante ni munoo joxoñ benn xale bu la ne rek yow def naa la nawle wala yow bëgg naa yor sa jikko mënta ne saa soo waxee ñu ngi naan dëgg la wala du dëgg di ci posé waay question ah. Mhm. ak fi réew mi toll. nawle billaahi ah non bi billaahi gis na gis nga ñooñu ñooñu rek man dafa taxoon dafa taxoon man ma taxaw teemu coro donte ay xale lañu ay xale lañu ah. ci seen kanam yu tuuti sax ci seen kanam. ci wàllum âge âge laa wax nag. billaahi ñoo jur. billaahi waaye dañuy ñooñu saa yi su xëyee gis liggéey bi lu mu métti métti pression bi lu mu métti métti ndax lu ne daj nañ ko lu ne dégg nañ ko lu ne nag. Mm-hmm. waaye ñooñu bu ma leen xalaatee rek dama naan ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañu. waaye yàlla dogal na ñu am lu ñu gëm ba jiitaluñu alal ñu bëgg-bëgg mais da ngay pare liggéey coro taxaw si tali bi di jël taxi ñu naan la yow <laughs> yow yow bëggoo dara. waaw dëgg la bëgg naa tey ñu feeñal yu bari yu ñu ci plateau yi. parce que Seexu dañ la koy wax xanaa yow bëggoo dara. Mhm. ya xanaa yow bëggoo dara te xam ni yow yaa bañ waaye nekku ne occasion bi moo la manqué. Mhm. ndax nag gis nga fii réew mii ñu ne. boo fi nekkee di liggéey ñun barab ba ñuy liggéeyee xanaa yow nga bañ. Mm-hmm. ndax néew ñoom. allo allo nawle allo réseau bi mooy mooy daw donc lii Salma di wax ñu xaar rek. Euh, mu reconnect reconnecté waat euh, lii Salma di wax di lu ñu mën a duut baaraam di lu ñu mën a seede di lu ñu mën a wax parce que man ak moom dañ koo dund ensemble dañu koo dund dundati ko dundati ko parce que des fois nga gis sa moroom ci milieu bi di la xeeb naan la mais yow kon yaa ngi jël taxi ba tey ngay reetaan des fois nga génn taxaw ci sa bërëbu liggéeyukaay paas di la të ñu romb la fa taal seeni kat-kat yu tooy wala nga taseeg ñoom ci ay conférence de presse wala nga taseeg ñoom tey ci ay jotaay wala ay manifestation wala yeneen nga gis leen ñu yéeg seeni ay kat-kat yu tooy defar ba mu baax di la ñaawal yow mi nga xam ne tey danga ne dëgg rek moo la tax a jóg dëgg ngay xeexal mais dañ ci doon dem ñoom ba ba ba osé taxaw ak ñun di ñu wan ne carrément fi ngeen far jixaat ngeen nekk jixaat noonu lañ ko daan tuddee waa jixaat bi di ñu ree suñu jógee di ñu jëw ci plateau yi man am na ku ma sa ñëw ci plateau ma bokk ak moom mu ne ma mais nii nga fi topp nekk fii Macky Sall guddi boobu du ko guma kaso Macky Sall guddi bëccëg suba ngoon di xaste xanaa xamoo ne lii da lay gën a tardeel en plus euh, sa morom yi ñëpp ñu lekk di di tëddee njaaxaanaay di laal fii di laal côté bee terewul tey jii ñu ngi sant yàlla te du tax kenn mere la ma ne ko que ça soit la dernière fois bu ma ko waxati yow defal la nga bëgg a def te nga bàyyi ma ak sama xel man ma def li ma bëgg a def man moom ñëpp ma ku ma ci ma sa taxawal walla ku ma ci ma sa waxal tey mën naa wax ak yow li ma la waxoon te soo ko ñëwee weddi ko ma génne la lañ waxante wala ku ma mësoon a message di ma baab dootoo ko defati ku mës a taxaw ak man nee nga kii dafa yabaate parce que nii la ma yàlla bindee nii la ma yàlla bindee ñoom ñuy doxal am seeni ay 4-4 am ci ñoo xam ne le premier jour bi ñu demee palais ñu jox leen ay 2 millions 3 millions ne leen paas daal leen am ay yeneen yu leen dig ñu xëy changé seeni ay veste jaay seen seen seen seen ay ngor buñ ko amul woon sax commencé nee nañ dañuy xaaj ci digg bi ñu ne loolooy impartialité déedéet loolu de impartialité impartialité ci journalisme warul nekk rek waaw dangaa war a tëddee njaaxaanaay tax ba même Ousmane ko deful dara sax yow jéem ko chargé parce que nit ñi wax ne waaw kii dafa tëddee njaaxaanaay tëddee woo njaaxaanaay dangaa naa féq tëddee woo njaaxaanaay dangaa bëgg a dal fii dal fee mel nen buy bonde te nen du bonde tëddee woo njaaxaanaay de dangaa bëgg bu lii génnee nga am ci lee nga am ci di muusaatu mais Macky Sall a réussi quelque chose mooy képp ku mu woo képp ku ko fekk ci nguuram képp koo xam ne dof doflu nga rek ba ñu xëccaale la ñoom ñoom ñoom démasqué nañu la am nañu ñàkk chance ñu démasqué ko ñu démasqué leen képp koo xam ne nii rek nit nga woon koo xam ne danga doon dof dof lu ci kanamu askan wi nit nga koo xam ne dangaa jëloon sa ngor jaay ko ci kanamu askan wi yaakaar na yow képp la képp ko ko doon def rek tey jii Macky Sall démasqué na la moo xam journaliste moo xam euh, euh, société civile kum ci mënti doon man sama téléphone ndakate euh, wifi bi moo fayoon bi sama nawle di wax ak man après dinaa ko woowaat nawle dinaa la waat léegi-léegi ñu gën a wax ci mbir mi allo allo waaw soxna Coro waaw sëriñ bi ñu de delloo nañ la ziar bu baax a baax tur bi naka la foñe woowee man Ibrahima la maa ngi di woote woowee depuis Paris Ibrahima depuis Paris yow rek la ñuy déglu an naka waa France mbaa ñëpp ngi ci jàmm. ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. waaw mais bëggoon participer rek benn participation bu gàtt rek. ay ca yaru la déglu. waaw bon di wax euh, man daal dama am message mooy yónnee waa Sénégal. mooy ban. ne leen di di di leen wax naan euh, dañ am benn chance boo xam ne waruñu ko bàyyi mu jàll. Mhm. parce bon. ñun ne nekk ñu ci dëkk bi mais fi ñu toog li ñu fi ñu nekk nii la gis suñu dañuy gis ni dëkk bi di doxee. Mhm. Euh, jaar doxewul ci yoon daal donc la meilleure façon fi mu toll nii de tegaat lépp ci yoon mooy dénk coalition Diomaye euh, réew mi ñu mën a amaat yaakaar ci Sénégal sinon bu dul loolu ay ati at encore ci kanam dinañ toogaat di xaaral. Mhm. donc euh, franchement man maa ngi euh, soññ euh, lu ma mën ci ñun suñu côté boo xam nga li ñu mën mooy di wootee di soññ nit ñi di leen wax naan bon di leen leeralal di tijji seen bopp ko parce que bon waaye noonu yàlla dañ ne tukki moom ku si jëlewul xam jële ci xaalis. Mm-hmm. donc bon donc li as su ndaw seen ci am ñi ngi jéem a woote Sénégal ñi ngi jege di leen jéem a pour ñu mën a. tekkeeku daal parce que sa dëkk bi ni muy doxee du yoon du dëgg du yoon donc bo ñun dëkk yi ñu nekk nii bëgg nañ aussi bon suñu réew. Mhm. ñu dund les mêmes conditions yi ñuy dund ñun daal. Mhm. donc loolu la ko affaire yi jarul du ay luxus du dara ko affaire bi liggéey la rek xam nga fii dëkk yi ni ñu nekk nii kenn luxusu fi kenn du fi génnee nit ñi dañuy xëy liggéey xam nga euh, wàcc euh, xam nga am am dara donc Sénégal aussi nit ñi bëgg nañ comme sauf que euh, seen njiit yi njiit yi ñoo amul jotu lijjanti nit ñi pour ñu liggéey donc loolu rek la quoi. Mhm. te Ousmane Sonko mu yàgg wax. li mu wax moom liggéey liggéey moom nee Sénégal boo leen ma ko joxee man rek mënu moo ko defar ñun ñëpp ñooy teg sumeeku jàpp ci liggéey. Mhm. donc c'est simple affaire bi amul na dooy naxaate ko du ay du ay miracle du dara li mu wax c'est simple ñuy liggéey et def ci jom def ci fula def ci fayda bañ a randal alalu réew mi li war a voilà ku nekk jël li nga yeloon c'est tout c'est affaire bi amul amul amul leneen soxna si. Mhm. donc man daal di di di di di soññ ñëpp daal ne leen bon ñu jóg voté ji jëli seen i carte d'identité dem voté changé li fi nekk nii et puis euh, yàlla mun na ci def sutura daal man yàlla mën na def su te dañuy def sutura sax dañuy def sutura. bien sûr honnêtement moi je me je ah. man bu gis comme li ñuy wax euh, des fois ñu naan ñu ñuy tooñ naan ñu mais yéen foofu ngeen toog rek di woote naan di woote di wax parce que xam nañ li taxoon ñuy wax xeex leen ah. c'est woon mhm. fi dara te xeexoo ko. mais la mhm. preuve. Mhm. tey jii xeex na ko ba tey jii lan moo ko may tey mu mun a toog ñuy taxaw siggi xool nit ñi di wax ak ñoom si bët parce que dafa xeex. c'est tout ñun loolu lañ doon wax te dara. Euh, yàlla indi na ko fi tey ba lii man bon bett ma man je savais que ne fii lay mujjee. Mhm. boo amee lecture ci àdduna da xam ne fii la naan fii la war a mujjee te xoolal li ci des lu tuuti la vingt 24 la moo ci des gars génn sangu ba set solu dem dugal seen carte mu jeex tàkk xoolal ay sàcc ay élection yooyu loolu mënatul nekk fii te àdduna toll kenn mënatul sàcc élection c'est impossible. Mhm. yaa ngi kenn wutu ko sax parce que gis nga boo demee ba ginnaaw ndindi felo fële ca àll ba internet a nga fa nit ñi dañuy voté léegi taxaw xool ñu compté ñu ne ah yéen la ñu am donc xam sàcc élection yi moom loolu moom na ko gars yi dindi seen bopp xëy dem voté ñu fa bëggee def leneen lu dul savon lu mooy loolu xam nañ bu baax ne kenn du ci mucc. te hmm. gën a xam ñoom ñi euh, gérer affaire yi donc c'est simple. Hmm. donc di di di remercier ñëpp di wax daal bon. contentement parce que ñun fi ñu fore nañ dëkk ba mais kontaan nañ trop. franchement man depuis vingt depuis deux mille vingt et un parce que man nag ma jógee Sénégal léegi mi ngi bëgg a yàgg quoi. depuis mille vingt et man sama téléphone bi daa yor di xool lu xew ci réew mi des fois mu am yu ma métti des mais nag bon tey moom lépp sedd na bon franchement on a repris confiance et puis euh, je pense que suñu borom dina mottali lu des. Mhm. gërëm ñu leen di sant parce que bon gis nañ li ngeen xeex ah. dafa gis nañ bu baax li ngeen def ci xeex bi et puis incha allah euh, lépp na tegu ci yoon euh, méritocratie ñëwaat ci Sénégal. incha allah affaire par par la méritocratie liggéey pour ku nekk liggéey xam nga voilà am na nga mérito surtout. incha mon frère. di di leen di leen gërëm ñu bañ ah. ñi ñoo leen di gërëm. jërëjëf vraiment merci beaucoup merci merci c'est ci ñu koy gërëm bu baax a baax depuis euh, France ca Paris. Euh, moom moomee nga xam ne mu ngi doon wootee di ab sénégalais boo xam ne dégg ngeen li mu expliqué mu mel ni rek xel yi ak xol yi lépp lépp lépp mi ngi fii euh, nee naa dañ doon dund ay at at yoo xam ne métit lañ ko doon dundee. at yoo xam ne nii euh, ci euh, euh, njàqare lañ ko doon dund at yoo xam ne nii ci souffrance lañ ko doon dund dañ doon dund at yoo xam ne nii dañ doon xoqatal duñu tiital musiba lañ doon dund ci ci at yi mais gis ngeen li yàlla def yàlla dafa def tey jour ji tey tey tey tey mooy dix ñu compter jëm ci élection yi jour ji mooy dix ay waxtu ne jour ji mooy neuf jours ñu war a incha allahu rabbi dem ci ay élection gis nga yàlla ni mu gàttalee suñu coono bi ñu doon dund gis ngeen coono bi ni mu yaatoon lépp at yi mu def lépp lépp lépp lépp mais yàlla def na ni coono boobu fii léegi ay fan bu ñu ko gëmee coono bi day dañ gis ngeen yàlla ak mën-mënam gis ngeen yàlla ak waay muñkat bi gis ngeen yàlla suñu borom ak li nga xam ne noonu la mën a tegee doomu aadama bi nattu mais mu mën ko ko tegg à tout moment yàlla mi ngi nii ku nekk ci dëgg bu ragal ku nekk ci dëgg toogal xaar dinañu la la ŋàññ dinañu la tuumaal dinañu la wax yaa fi def dinañu la rey nga dem ba barsàq dootoo fekke ñooñu tey ñu ngi aljana ndax ay martir lañu dinañu la xañ say cër nga laago fekk juddoo woon noonu te loolu yàlla moo la ko waroon a teg mais as aw nit teg la ko dinañu la torturer bàyyi la psychologiquement ak ay xalaat yoo xam ne doo comprendre dina la dinañ la xañ sa liggéey xañ la sa sa sa am-am xañ la nga teral say waajur ak sa famille lépp lépp lépp ñu ne la yoonu dëgg moo yombul lépp lépp lépp lépp ñu ne la yoonu yoonu dëgg mën nga cee nekk sax ñu jiiñ la fenkat yoonu dëgg mën nga cee nekk ñu jiiñ la sàcc mais lu mënti doon yoonu dëgg lay doon yàlla sunu boroom dafa nepp noppi démb tey soog a ñëw yàlla moo ne loom ci mënti doon da koy jugé yàlla nee na lu mënti am da koy jugé te yàlla xaaratul léegi ñuy dem allahira si àdduna ya commencé li xew démb ak li xew démb ak tey dafa wane ne le temps est le meilleur juge le temps est le meilleur juge te lii ñu bëgg yàlla bëgg a wan lii ñu yàlla wan nii jeexagul ay at de souffrance des années de souffrance yàlla ñëw ne ci ay fan yu néew yii rek di ngeen ci dund as kus néew xol yu xol yu neex ndax nee naa leen damaa yërëm Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak waa coalition Sonko Diomaye président bi nga xam ne fi mu nekk nii ñoom ñoo toog war a defar réew mi dama leen a yërëm dama leen a yërëm parce que li leen di xaar bari na li jàkkaarloog ñoom bari na li leen yaakaar bari na. li wékk yaakaar ci ñoom bari na amatuñu droit delto gannaaw li ñu mën mooy li ñu diggee askanu Sénégal ñu jëm ko matal suñ ko matalul rek paaka dina tegu seeni ay put ngeen baal ma parce que nag sénégalais yi ñoo sonn sénégalais yi dañoo sonn ñoom ñu ñëw ne leen éveil des consciences Ousmane Sonko ñëw ne leen xaar ma taal seen xel yi Ousmane Sonko ñëw ne leen nit leen ma wax ak yéen loo xam ne moom ngeen di dégg ngir ngeen ànd ak man ci yoonu dëgg bi ngir ñi soppi Sénégal ndax lu mën a nekk la yaakaar boobu noonu tey jii day gën a renouveler wu yaakaar boobu ñaar ñii ci sama ginnaaw yaakaar bi nit ñi am ci ñoom day gën a foor sénégalais démb mérito wuñ liñ doon def du loolu lañ mérito de topp ci gis ginnaaw Ousmane Sonko di daw ñii ñaq ba tooy ñii di simmeeku ñii wor ba ngoon lekkuñu naanuñu te Macky Sall rek teg leen ko ndax bu Macky Sall def loon ñaaw téef yi yépp depuis ak tey rajo Ousmane Sonko ba lii ci xew yépp xew ci amaana li am démb du am donc pays bi le Sénégal ne mérite pas dañoo nekk ci mois de Ramadan maanaam weeru koor lañu nekk nekk ci temps de carême sunu mbokk jàngu bi di woor ñun ñii jullit yi ñuy woor ñu war a woor ba ngoon jël chapale yi ñii jël kurus yi ñu ñaan yàlla sunu borom ñépp ne ko fa tegg askanu lëmm génn di topp ci benn nit askanu lëmm génn di daw ci kenn nit askanu lëmm génn wane seen yaakaar ak seen cofeel ci kenn nit te dara rawalalu ko du rafetaayam du xam-xam bu mu leen di jaay du lenn loo xam ne gis nañ ko ci moom liñ koy toppee mooy yaakaar yaakaar googu fort ci ñoom ba ñu koy wanee nii moo tax ma ne dama leen a yërëm ñoom ñaar nii dama leen yërëm ndax li leen di xaar lu rëy la dama leen yërëm parce que sénégalais dafa dafa dafa leen a yàkkamti leen te nee naa leen ay at lañu dund ay métit ay at lañu dund souffrance mais yàlla ñëw na leen neuf jours yi walla dix jours yi rek seen xol yi dina xaw a xaw a apaisé wu tuuti tuuti ngeen dem ci ay élection fal ki ngeen bëgg ngir mu soppi Sénégal ngeen yaakaar ne au soir du 24 mars bu ñu amee ndam ba pare ba jubilé ba le 25 mars ngeen yaakaar ne noonu la dëkk bi di continuer déedéet foofu nag la moo focus di amee chance foofu la moo focus di amee sens le mot focus foofu lay amee li nga xam ne tey ji moom mooy dëgg le mot focus ak changement foofu lay amee dem jo dem dox nag le mot focus ak changement foofu la ñuy jógee egg ba le 2 avril ak le 3 avril euh, euh, prestation de serment foofu lay amee nag li nga xam ne moom mooy sens mais instant bii nii dama ne li ñu gisagum nañu savourer tooguma tay di live xalaat ne dinañ ma jël si léegi tooguma tay di live sama mbokk yi di ma woo de partout tooguma tay di live sama jëkkër malgré daf maa jàppale ci li may combattre ndax xam na ne ngëm-ngëm la te lii moo ma boole ak moom révolution moo ñu boole ñun ñaar moo waral sunu Mandela gi mais terewul fu mu toog rek mi ngi naan madame est-ce que tey li nga wax ëppul est-ce que madame duñu duñu modéré tey dañuy sant yàlla ndax toog nañu dignement di ko nettali tey dañuy sant yàlla ndax toog nañu xalaat ne sunu doom yi ëllëg ak sunu sët yi ëllëg dinañu moy ci loo xam ne luñ leen fi bàyyi la muy lekk maanaam sunu ndono ndono goo xam ne duñu doon ay dawkat duñu doon ay daw làqu duñu doon ñu ñàkk ngor mais ñu dëggal suñu bopp lañuy ñuy doon waxuma sama bopp kese ñun ñëpp laay wax Salma Ibrahima Fall ñu woote léegi yéen ñiy woote yéen ñi continuer di woote yéen ñi seetaan live bi parce que fii ku ci nekk na toog applaudir boppam ku ci nekk na siggi xool ci kaw ku ci nekk na xam ne liggéey bi da cee bokk na ñëpp xam ne dañoo àndandoo liggéey dañoo àndandoo taal xel yi dañoo àndandoo révolutionné moo tax man du ma bëgg kuy woote naan coro ñu ngi lay jaajëfal salma ñu ngi lay jaajëfal déedéet lii du nattu de jihaat lañu nekkoon ñi ci dee ñu ngi aljana boo leen ko weddee laaj leen ñi jàng diine boroom xam-xam yi ñi ci dee ña nga aljana donc ñun kenn waruñoo jaajëfal kenn waruñoo wax jërëjëf déedéet tuuti nañ ci loolu xam nga lan ngeen war a def mooy ñu àndandoo di sant yàlla kenn waratul jaajëfal kenn donc naa continuer jël téléphone bi ci le 77 520 88 80 ci whatsapp bi ngeen wootee pour joxe seen xalaat allo. salaamaaleykum sista Thioro noo def. aleykum salaam Fatima nuyu naa la bu baax a baax a baax sista. maa ngi di la di la sargal. ci sa taxawaay vraiment di la di la di la féliciter comme comme toujours rek sa mhm. taxawaay macha allah sister Thioro yàlla yàlla fay ci taxawal bi nga taxawal sa réew parce que waaw ñun ñun jigéen ñun dañu am rôle bu rëy ci société bien sûr suñu cër ñun buñ ko xamee rek lu bëri dina changer ñun lu ñu bëgg mu changer rek day changer mhm. parce que jigéen mooy àddina Mm-hmm. donc euh, voilà maa ngi lay di rendre hommage di rendre hommage jigéen ñi ne ci projet bi yépp dana leen yàlla fay liñ ciy séentu yàlla fay ko fay ko suñu njaboot ñu dund ba ñun coono yi ñu dund ci Sénégal suñuy doom duñ ko dund suñuy sët duñ ko dund ci barke Seydina Muhammad euh, sangu-sang yi amiin yaa rabbi jaajëfal bu baax jërëjëf ma bëggoon euh, participer mm-hmm. tuuti ci live bi mm-hmm. Euh, bon toujours même chose rek lañuy wax mais wax waxaat du bëri wax et c'est pour fàttali rek que nit ñi nañu dem jëli seeni carte tey président son ko wax na ko nañu jëli carte yi ñu fexe voter en masse deuxième tour buñ ko xalaat vote bi premier tour la war a yem parce que ñii régime bi ils sont minoritaires c'est vrai am na ñu naan sàcc am na amul mais li am taleer mooy ñoom dañuy dem jëli ay étranger ay ay mauritanien di leen jàllale côté Fuuta boobu di leen voteloo mhm. loolu na si leader yi bàyyi xel nañu fexe ñu ñu bind autorité mauritanien yi xamal leen ni seeni doom ñi ngi jóge seen réew ñëw Sénégal di dugal seen loxo suñu vote loolu du yoon mhm. guinéen yi nga xam ne dëkkuñu Sénégal je le dis pas pour stigmatiser man Sénégal euh, tout façon ñun sénégalais yi ñëpp benn lañ mais tamit il faut ñu wax dëgg bu dëgg jotee. Mm. Euh, c'est pas un problème de stigmatiser benn race. mais dama bëgg a wax ne am na ñoo xam ne am amuñu nationalité sénégalaise amuñu droit ñëw suñu dëkk di fa voter c'est pas normal. Mm. donc les les les leaders nañu fexe ñu jokkoo autorité ñooñu bind leen xamal leen ni. seeni doomi réew ñi ngi jógee seen réew ñu leen di fay ñu ñëw di dugal seen loxo suñu élection parce que gis nga ñu coro buñ leen baaree ba voté si wuñu rek victoire bi mun naa ni mun na dem ba ba romb quatre vingt pour cent mun na ko romb bien sûr parce que régime bi ils sont mm-hmm. problème bi mooy ay ay jàmbur lañuy jëlee ci àll ba fay leen xaalis bu weex taal dugal leen Sénégal yab leen ci ay kaar yóbbu leen tas leen côté Fouta ak côté Casamance ci àll bi noonu ñu voté xam nga. Mhm. plus les bourrages d'urne loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Mhm. bu ñu sécuriser suñuy vote daal voté en masse incha allah rabbi le le vingt quatre onze heures ci suba carte gi leer coro onze heures ci suba dañuy jubilé. waaw bu ko defee ñun diaspora ñun ñëpp ñu ñëw wàcc bu neexee yàlla feete parce que boobaa indépendance su Sénégal lay doon parce que Sénégal dafa jot mu moom boppam. Mhm. sonn nañu ci benn groupe nit jël alalu Sénégal di ko séddo toog ci suñu diggu bopp yi jël Sénégal moom ko parce que Sénégal nekkul ne euh, benn groupe bu matul cinq cent personnes ñoo ko moom mhm. boo boo fa ñëwee sa xol day métti de tu vois que majeure partie population bi ngi dund pauvreté bu méttee métti mu am beneen group boo xamante ni ñoom ñu dara loolu nag dafa war a jeex te jot na pour mu jeex yàlla wu indil nañu président Ousmane Sonko yàlla def na xeex na xeex na xeex na xeex na ba egsi fu mu fa egsi tey lu ne teg nañ ko ko mais fexe na ba tegal ñu candidat ngir rek pro. Mhm. allo tey mu mel ni dama am aussi problème connexion ak sama sama téléphone bi parce que euh, ça arrive aussi euh, ñi nga xam ne dañuy woote seen tur sax du affiché wu donc am na ci ay benn benn yoo xam ne nii seen tur day affiché wu. mais ça m'arrive aussi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo may woo seen tour du mën a affiché wu benn yoon donc dañuy continuer rek jël ba tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy woote ci le 77 520 88 80 ngeen mën a wootee appel whatsapp parce que whatsapp rek lay dox actuellement dañoo daw a daw a daw ba suñu numéro yi sax nangootuñ koo taal léegi whatsapp rek la ñuy mën a jot ñu nekk ci dëkk boo xam ne nii dëkku euh, dëkku xaw ma nuñ ko mën a waxee la dangaa dem ba yow mujj gi Sénégal doo mel ni pantre ci yow sa numéro sax sañoo koo def parce que WhatsApp kenn mënu ci tracé kenn euh, donc da ngay dem ba WhatsApp rek ngay doxee mënoo jël numéro numéro normal foo nekk foo amul euh, foo amul euh, wifi kenn du la jot nga mel ni doxandéem ci sa biir dëkk c'est grave mais léegi ñu jëli suñu numéro yëpp ñu ñuy jot à tout moment incha allah allo. oui maaleykum salaam mon fils. ñu ngi ziar bu ci koor gi. delloo ziar delloo naa la ndokkal naka sama goro mbaa mi ci jàmm. sant bu baax mu ci jàmm baax alhamdulilah. alhamdulilah ñuy seetaan ne yow aussi taskatu xibaar ga bu féetee ca diwaanu France. di doomu Sénégal boo xam ne nii man ak yow li ñu boole mooy presse moo ñu boole waaye ñu doon doom ak yaay ba mu gi mbir mi jéggi na sax doom ak yaay kese kese kese macha allah ndax sama goro mi ngi daagu sama kër macha allah. day day am mbégte rek yow moom saa saa bu ñu lay xooree ci écran bi dafay daf ñuy fàttali lu bëree bëri bëri ci détermination ci engagement parce que tey boo amuloon détermination am gëm-gëm. Hmm. Euh, yaakaar naa bu la gëm-gëm sax ñi la xam sax mën nañ la bañ a parce que xam nañ boo agsee fii nii tey gëm-gëm moo la fi agsi hmm. euh, en tant que en tant que journaliste ak kuy yëngatu ci wàllum communication tey li nga xam ne moo xew depuis démb ba léegi dañ ci am beneen gis-gis. Hmm. Euh, te bu ñu te maanaam tey ci conférence de presse bi nga xam ne moo am tey diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. Mhm. daf ci am jàng yoo xam ni mënees na ko ci def parce que ñu bëri dañu jàpp ni Bassirou Diomaye Faye boo ñu Ousmane Sonko la ñu ko mënee waxee noonu maa ngi jégalu ci kàddu bi. Mhm. mais tey boo discours Ousmane Sonko nga déglu parallèlement discours Bassirou Diomaye Faye da ngay gis ne ñaari responsable ñooy wax. Mm-hmm. ñaar it ñoo xamante ni xam nañ li nekk ci seen kanam xam nañ li leen di xaar xam nañu tamit li Sénégal yi teg ci seen ndodd ñoom ñoo doon wax te boo déggee Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante ni tey Ousmane Sonko am na solo lool mais tey ki ëpp solo fi mu toll nii ëpp ni sono Sénégalais yi solo ëppal ñi nga xamante ni ñoom ñooy seeni i partisan solo mooy Bassirou Diomaye Faye parce que moom mooy le candidat fi mu toll nii su fekkente ni seen mouvement bi jël na élection yi moom mooy dégg monsieur le président te boo déggee discours bi nga xam ne tenir na ko dañ xam ni euh, kii am na njug parce que mhm. boo amul woon jub kenn du ko tëj kaso ci affaire post Facebook dañ koy tëj kaso parce que dafa détourné ci li muy liggéey wala dafa def ay malversation wala yeneen yu demee noonu kon mën nañ ko ko seedeel. Mhm. beneen bi mooy tamit du koo xamante ni dafay dafay dafay dafay làq-làqal dëgg dëgg moom ni mu ni mu ko gisee day jaar ci digg bi. Mhm. te yaa yaakaar naa ni njiit loolu am am na ci solo lool beneen bi mooy tey euh, dafay bëri loo xamante ñëwaat na ci seen discours mooy justice. justice dafa baax ci réew parce que tey réew bu demee ba justice nërmeelu mooy réew moomu noonu ñi nga xam te ñoom ñoo fa dëkk sax seen seenu kaaraange fi mu toll nii dafay dafay na sax kaar moo waroon a gëm ni ci magistèru président Macky Sall dinañ ci tëj Souleymane ndax dafa caricaturer le président de la république bi nga xamante ni dem na marché pour Charlie Hebdo. bi nga xam ne dafa caricaturer ngeen ko mbindee. kan mu mënoon xalaat ni ci magistèru Macky Sall dinañ ci tëj maam Biram wàcc fiché ko parce que tout simplement dafa génn benn information boo xam ne c'est vérifié. mais ça n'arrange pas l'état du Sénégal. Hmm. kan moo mënoon a xalaat ni ci ci magistère Macky Sall dinañ tëj Coro Mandela kan moo mënoon a xalaat ni dinañ tëj Mati Sarr Niang j'en passe et j'en passe Pape Alé Niang déjà yoo xamante ne nii tey dañuy représenter euh, la démocratie sénégalaise parce que quand on parle du de la presse si la presse est debout c'est parce que la démocratie est solide. Hmm. mais si la presse est fragile tout simplement on n'est plus dans un état te tey nag li nga xamante ni tey bokk na ci pilier li nga xam ne mooy mandargaal mandargal démocratie bokk na ci li gën a sooxe ci nguru Macky Sall tey mooy justice état de droit mooy tamit li nga xamante mooy liberté de la presse et liberté d'expression. dem ñu demoon ba toll ci foo xamante ni nit bu ñu ko tëjee kaso kenn du wax lu mu def mais dañ naan lu mu wax wala lu ñu ko jiiñ kon bu ñu tolloo foofu noonu yaakaar naa ni ah démocratie nax saay na. Mhm. mais li nga xamante moom la ñu ji muy le 24 mars. mu indiwaat beneen xar kanam bu yees ci réew mi parce que kenn musul woona a xalaat ci àdduna ni jiitu réew mi dina bëgg dara conseil constitutionnel def safaan bi kenn mënul woon a xalaat ni dinañu bëgg dara cour suprême def sa safaan bi bu ñu demee ba am ñëw yu mel nii dafay mel ni kon espoir dafay duwaat ci Sénégal dafay mel ni kon fi mu toll nii mën nañu amaat yaakaar nii ci fan yii ñuy dëgmal nii Sénégal dina retrouver waat tey liberté bi nga xamante ni moom lañ ko yaakaare woon moom lañ ko bëggoon mu am ko te yaakaar naa ni kon Euh, képp koo xamante ni politicien nga képp koo xamante ni tey bu war nga xar sa tànku tubéy def li la war ci mbir mi ba bu ñu àggee au soir du 24 mars prochain li nga xamante moom la ñu soxla muy une alternance boo xamante ni dafay jaar yoon élection yoo xamante ni dafay inclusive ba pare transparente ñu am ko ci Sénégal. donc pour ne pas monopoliser la parole parce que maa dégg dafa mel ni téléphone mu ngi sonné rek. waaw je tenais à faire cette petite ci la gën a jaajëfal bu baax a baax. te di la gën a ñaanal tam yàlla gën la taxaw bu baax incha allah. amin yaa rabbi amin moo fiis nuyu ma sama goro bu baax a baax comme d'habitude tu as été pertinent vraiment comme d'habitude macha allah ñu ngi lay euh, ziar bu baax a baax mu doonoon Ismaïla Ba Seck moom mi ngi fële ca diwaanu euh, France waaye tam. nekk taskatu xibaar boo xam ne bu renommé la kenn dootu ko natable man ak moom ñoo defandoo rajo communautaire ba léegi nii ñu séq leneen ak leneen leneen euh, ci li nga xam ne moom mooy wàllum defalante lu baax macha allah allo. allo oui. waaw ça va bien sëriñ bi tur bi naka la foo ñuy woowee. waaw Adama. foo ñuy woowee. Euh, Maroc yow rek la ñuy déglu. waaw waaw yow rek la ñuy déglu sëñ Adama. man dañ laa bëggoon nuyu la quoi si engagement merci merci mon frère. vraiment vraiment lay kontaan nañ ci merci merci. Uh-huh, merci. vraiment merci beaucoup Adama depuis Maroc. merci merci jërëjëf jërëjëf après ñu déggante mon frère merci beaucoup euh, mot d'encouragement yi nag daf ñuy gën a may doole daf ñuy gën a euh, jegale ak li nga xam ne moom la ñuy xeex nee naa leen boobu ba tey du ñu bàyyi bëgguñoo bàyyi mais nag yéen ñi ñuy encouragé yéen ñi nga xam ne yéen a topp ci suñu ginnaaw bopp ba tey du ñu wax ni puusal puusal puusal yéen aussi kenn amul seen fay kon dee leen gërëm seen bopp jarul di gërëm Coro Mandela jarul gërëm Salam Ibrahima Fall sunu sunu yëf la il faut ñu def ko parce que yàlla daf ñoo def ñu nekk ay waxkat yàlla nattoo ñu ñu doon ay journaliste mais yàlla nattoo ñu tam ñu nekk au devant donc li ñu mën a def moom mooy woo sénégalais ci ñëw leen ñu waxante lii ñëw leen ñu def lii pour Sénégal mën a dem ci kanam ak wan leen ñan ñoo baax ci waay politique yi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sista Thioro nuyu nañ la. delloo bu baax a baax a baax sëriñ bi tur bi naka la foo ñuy woowee. Mohamed Kunta yow rek la ñuy déglu fan nga ñu woowee. depuis Hamburg. Hamburg. Hamburg en Allemagne waay. ah Hamburg euh, Allemagne oui. waaw. d' accord nañu si événement bi. parce que lii lañ doon xaar depuis trois ans. c' mais sànq dégg naa la nga ne bu la kenn sant waaye nag loolu yaakaar naa nit ñi duñ la si bàyyi nañ la parce que def nga. non billaay cant ak gërëm gi kii <laughs> waaw mhm. waaw mais ba tey amul solo sant la parce que def nga mhm. merci à travers sa page ñu doon informé wu di gis dëgg di gis lu ne merci donc sa professionnalisme yal na si yàlla def jàmm ak euh, salaam incha allah amin yaa rabbi amin mon ñun ñun nag kontaan nañ trop trop trop xam nga rek boo nekkul Sénégal sa xel du dal bu jàmm amul waaye nag bu jàmm amee ñëpp kontaan. wallaay lanzim. xam nga lii lii am ni day wane ne Sénégalais yi ay nitu jàmm lañ. Mm-hmm. mais nag boo leen sonalee nga sonal leen nga sonal leen dinañ dem ba fippu waaye nag lii wane ne tey ñëpp tey kenn tojul kenn taalul kenn deful dara ñëpp jàmm la ñuy wuyu de. Mm-hmm. kon nag daa daa mel ni problème bi am na fu mu woon newul si population bi newul si xale yi woon. Mhm. kon nag ñun kontaan nañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan nag yàlla def jàmm sista Coro merci beaucoup. un milliard bi merci beaucoup mon frère du côté de l'Allemagne merci beaucoup encore une fois yéen aussi amuñu seen fay jërëjëf nuyul ma toute la famille donc euh, dañuy rek continuer ndax xam naa Seydina Mohamed soxla na yaayam jamono ji di jël ñi nga xam ne ñoom ñooy woote ci le 77 520 88 80 ngeen mën a woote WhatsApp pour ñu mën a jokkoo ci li nga xam ne moom moo di ligne bi ngir mën a waxtaane pencoo li nga xam ne moom la ñuy dund ki démb ak tey yaa ngi si jàmm. sant alhamdulilah sëriñ bi tur bi naka la foo ñu woowee. Ajamat Ajamat maa ngi lay woowee Ziguinchor. Ajamat depuis Ziguinchor. waaye. waa naka Ziguinchor nag. waa sant yàlla sant yàlla mbégte xam nga affaire la boo xam ne moom Sénégal ñëpp a kontaan. wallaay lazim gis nañ fa ay direct kay moom nit ñi génn di saa di saa fonte macha allah. voilà maanaam maanaam dëgg dëgg moo am dëgg quoi moo tax nit ñi xam nga dëgg fu mu feeñ rek day sedd. dëgg la. da ngay gis nit koo xam ne mën na ci ñàkk lu bari ñàkk si alalam yëpp mais bu amee dëgg rek xolam sedd. dëgg mais nag kenn du yee. yow surtout surtout yow félicitation. merci ndeysaan dama daan kala bi bi nga ci diggante sama xol da daan fees ni may waxee sa xol bu fees laay waxee ak yow. ndeysaan masa yàlla na leen yàlla yàlla na yàlla sàmp yow ak Salma Salma far des fois ma tooñ ko ci Facebook bi. <laughs> waaw sama nawle. <laughs> yàlla sàmm sàmm seen njaboot. sàmm seen sàmm seen bëgg-bëgg. amiin yaa rabbi parce que yombul. Mhm. yombul yombul su leen su leen neexoon ngeen ut beneen yoon beneen raccourci après def teg ñi ñëpp dëgg la mais nag nit ku nekk ak niñ la yaree. Mhm. nit ku nekk ak fi ngay jëm quoi xam nga fi yéen xam ngeen fi ngeen jëm. bien sûr fi ngeen jógee. Mhm. yàlla na leen yàlla na leen fa yàlla teg. amiin bon ba ma raconté la benn anecdote am na benn jour nag ma yoroon information bu. bu garaaw ci jamono affaire avant affaire problème mu madame ma bi. madame Ndella Madior waaw waaw ayca. ay yoroon naa ci ay information yu dëgër nag. Hmm. parce que jaar naa foofu. man maa njëkk def révélation si moom. Hmm. ma ne nag ah comme damay comme damay suivre wala fajiri lu bëri xaar ma doxantu foofu ñëw mais bi ma ñëwee bon ma gisoon c' était un peu compliqué pour gise leen yaa ngi génn ci buntu bi nag maa gis maa lay gis maa la bëggoon interpellé ma ne ah waaye ma bàyyi quoi parce que soxna si te mais nag bon yàgg naa bu ñu génnee dañuy génn rek di daw bañ a taxaw ci mbedd yeeg yooyu wallaay dañuy génn rek ëpp taxi daw. comprendre naa comprendre naa bu baax sax et puis bon. Mhm. mais pour wax leen ni félicitations et ñëpp leen di suivre. merci saa leen toog loolu yéen a gën a xam sax quoi. dëgg la nekk leen ci li ngeen nekk rek bon mhm. ñun amuñu lu ñu leen di jox mais saa ñu wéetee dina leen ñaanal. moo ëpp moo ëpp solo. voilà voilà. Mhm. nuyul ma sal bu baax a baax moom soo ko nee ajamat dina xam. ajamat incha allah dinaa ko ko wax. ok amal jàmm merci beaucoup mon frère nuyu ñu toute la population de Ziguinchor euh, dëkk bu neex bi nuyu ñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp donc mbégte rek ñuy dégg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Ziguinchor ñu am mbégte tey ndax ku ne xam na stigmatisation bi ñu dund ñoom ci li nga xam ne moom moo di at yi romb waaye itam euh, bundu xataal bi ñu leen bundu xataal ñoom diwaanu Ziguinchor ñoom suñu mbokk yi nekk foofu te lépp di Sénégal mais lépp dina àndaat lépp dina booloo booloowaat ñun ñëpp dinañ jaxasoowaat dina mel ni tulleeg maale macha allah allo sëñ Babacar. waaw Coro. sama mbokk ñaay-ñaay bi nuyu naa la. waaw sa sa mbokk ñaay-ñaay bi sa mbokk Mboro ça va bien Coro. sant alhamdulilah naka waa Mboro. ça va ñu ngi fi ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi ci jàmm bu baax ça va bien. sant alhamdulilah maa ngi leen di ziar bu baax a a baax. ñu ngi delloo Coro vraiment di la di surtout. merci bo boobu ba léegi bàyyi woo quoi yaa ngi wax yaa ngi conscientiser Sénégalais yi. Mm-hmm. et je me ñu ci bëri tey jii ñoo xam ne euh, yeewu nañ ci mbir mi xam dëgg dëgg dëgg lan mooy les enjeux. donc je mm-hmm. pense que sa loxo dugg na ci biir bu baax a baax a baax. donc dama la doon vraiment di la féliciter yow di la encourager surtout. Mm-hmm. donc tey lii yëpp bu amee. gëm mhm. naa ne sa loxo mi ngi ci biir bu baax a baax a baax. vraiment jàmbaar dëgg nga. merci jigéen nga mais tu es très brave. merci damay xool sax heure yi nga xam ne yaa ngi koy live muy vingt nga xam ne ku nekk yaa ngi sa kër di defar ndogu et tout mais yaa ngi sacrifié loolu yëpp pour Sénégal donc vraiment loolu ñu ngi la ci sant bu baax Coro di la ci gërëm. di la mhm. ñaanal yàlla mhm. yàlla la aar bu baax ak sa njaboot. amiin yaa rabbi vraiment boole ñu lépp incha allah. <laughs> jërëjëf jërëjëf nuyu ma toute la population de mbooro kontaan naa ci sama dëkk kontaan fierté laa am ci yéen aussi di nuyu Ndiaga Ndiaye bu baax a baax a baax gis naa ko tey ci laay bi di ko wax na jàpp rek tëw a bàyyi incha allahu rabbi gor moo ko mën te moom xam naa tamit li muy représenté foofu ci Mboro jàmbaar rek jàmbaar. jàmbaar la ak ayoba waa c'est vrai c'est vrai sunu mbooro mbooro la moom tam mi ngi ci waar wi te te wàcc ko benn yoon. <laughs> merci Babacar jërëjëf nuyu ñu waa Mboro yëpp euh, jërëjëf donc euh, mbégte la ba tey jii ñu continuer ak yéen ci la 77 520 88 80 day baax aussi. ñuy jël ñi nga xam ne dañoo nekk côté extérieur ñoom aussi ñu ñuy wax seen impression par rapport ak démb ak tey allo. allo oui asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi tur bi naka la foo ñu woowee. waaw maa ngi tudd Mamadou maa ngi leen di woowee depuis Italie eh, dëkk bu a Cesaano Maderno. Maderno nga ñu woowee ca Italie ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax Mamadou. ñu ngi lay ñu ngi lay ñëw di di la masawu avant tout di la masawu. jërëjëf di la encouragé di la encouragé parce que gis ngeen lépp li nga dund ci diggante gi yow ak sa yeneen maroom comme ni ko Ousmane Sonko ni ko Bassirou Diomaye Faye dundee noonu nga ko dundee yow tamit victime nga su la masawul rek ñun nii di croix ak xol <laughs> amuñu ko parce que gis ngeen li nga dundee bi vraiment man sama jabar tolloon na si waaw bu ma bu ma ko bu ma imaginer rek xoolal xool yow si situation bi nga nekkoon ak mm. foofu Sénégal nu mu mel. wallaay vraiment di la masawu avant tout. di la masawu di la masawu di la masawu. jërëjëf di la wax aussi. Mm-hmm. liggéey bi nga def rafet na trop. macha mm-hmm. allah waaw yal na la yàlla sàmm sàmm la sàmm sa njaboot surtout sa borom kër. vraiment eh, vraiment lii euh, yombul yombul. Mm. yombul ci mm. ci ci borom kër. waaw di ko di bu baax ak sa njaboot yëpp. merci di seulement rek message. d'accord yàlla ko mm-hmm. mm-hmm. c'est la deuxième fois may wootee si yu mel nii. c'est la deuxième fois. dëgg la te depuis depuis bu Macky Sall commencé def yi la. Mm-hmm. pour wan ni pour wan ni jub yoru si ñëw dëkk fii ñu dëkk Sénégal kese mais ñëpp képp kuy Sénégal war nga jug taxaw lii changement. changement di am mu jeex lii ñëpp ñu romb ko mu ñu ñu fàtte ko waaw xam naa na du yomb. Mm-hmm. message nag mooy Sénégal yi ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla ak yonent bi dem leen jëli seen carte booboo am solo dem leen jëli sen carte ku euh, ku inscrire daman xaal xoom fan nga inscrire nga dem jëli sa carte ko campagne bi neex na lool mbooloo bi bëri na lool. Mm-hmm. da ngay dégg su président Ousmane Sonko loolu la doon wax génn leen seen carte ngeen téye mhm. jour vote su jotee ñun ñëpp ñun ñëpp nañ dem vote ji mhm. lii ñu jeexal ko loolu rek yi yii détails yi ni ko waxee ne neen léegi suñu adversaire nekkul Macky Sall Macky Sall pare na day dem yoonam mhm. waaw Ba Amadou Ba mooy suñu mooy suñu adversaire kon nañ focus suñu programme focus si li ñuy wan a tabaxee réew mi surtout mais carte yi nañ ko yor mhm. suñu papa yeeg suñu yaay yi suñu sœur yi ñoom ñëpp nañ jëli seen carte nañ ko té téye ko nañ ko fonk ndax carte gi kat moom moo moom mooy changement bi mhm. lépp liñ fa mënti wax liggéey yi ngay def di lépp carte gi rek ay changement bi kon nag ñu ngi gën a ñaaxaat sénégalais yi xam ne ne ñoom ne voilà sénégalais moom dafa mature mais nag dañ leen gën a ñaaxaat waaw di jégalu nag bu baax fekkee eh, am na ay kàddu yu si suuf wala loolu mante eh, voilà. lépp rafet na lépp rafet na sëñ Mamadou. kon nag. voilà voilà man maa ngi leen di remercier maa ngi lay bu baax nag aussi di jàppale te bu baax yàlla dana la fay incha allah rabbi. amiin yaa rabbi jërëjëf. amiin ku baax ki amiin merci beaucoup c'est gentil vraiment. Euh, donc euh, comme ni ngeen koo xamee euh, jotaay bi dama koy ñëw yëkkati dama koy ñëw parce que aussi nee booy wax di wax di wax ba jour yu mel nii ñëw jë dafay normal nga wax mais boo waxee l'essentiel aussi ba pare rek danga cay daal di pare. te comme Seydina Mohamed yéen a koy dégg noonu soxla na yaayam depuis ce matin daanaka man ak moom gisante wuñu lu bari ndax ma nekkoon ci mbir yi donc guddi jot na ma ne woon nag damay ñëw def benn une heure de temps bu dëgër ñu ak yéen ñu saafonte. ñu fàttalikoonte li ñu dund pour jëm ci li nga xam ne moom moo di ci euh, le 24 mars prochain ndax li ñu dund psychologiquement war nañoo travailler ñu téye suñu carte yi ay quelques jours moom moo ci des ñu daal di dem ci mañ gàcce gi wane suñu naqar yi. wane li ci suñu xol yi nañu yëkkati ñii ñu jàkkaarloo lañ leen yëkkati ba seen biir yu weex ñu daaj leen ci suuf loolu laa yàgg di wax te loolu may wax duma ci duma ko wàcc suba laa dina am ginnaaw suba pourquoi pas dox jëm ci li nga xam ne moom mooy buñ ne suba la élection législative élection présidentielle yi waaw buñ ci paree toog nag am xippee xool ci Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko incha allahu rabbi gisoo leen ma tey xëy na nii laa mel nii laay waxee mais tey gën naa jovial gën naa rayonnante fecc nga xam ne nii dama ciy dal nii rek des fois ma dal ci nii rek tey damaa fecc parce que damay wax ne li nga doon xeex ay ati ati at li waraloon ngay sonn ay ati ati at li waraloon ngay nga ñàkk sa doole li waraloon ñu lay toroxal ay ati ati at li waraloon xëy na amoo baat sa réew ay ati at foo waxee ñu ne acam foo waxee ñu ne lii tey loolu lépp lépp lépp nga mën a taxaw siggi ci kanam loolu dama naan sant yàlla jërëjëfe sunu borom yàlla jërëjëfe yàlla ba ma nekkulee Yérim Seck jërëjëfe sunu borom yàlla ba ma nekkulee Madiambal Diagne jërëjëfe sunu borom yàlla ñoo ñu laa ci mën a tudd ndax ñoom ñooy cerveau bi jërëjëfe yàlla ba ma nekkulee autour de ñii nga xam ne ni tey jii ñoom ñoo bokk seen géew boobu nekk des perdus des perdants ay perdants lañu ay perdants lañu ñoom. malgré seen manigance malgré li ñu teg askanu Sénégal malgré seeni ay jëf tey ay perdant lañu ñàkk nañu ñàkk nañu xawma tey fu ñuy ne démb ak tey Cheikh Yérim sekk mi ne woon Pastef du am candidat ñu ne géetewaay mu ne Ousmane Sonko ak Jomaay Fay ñu génn kaso bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay waxam mais Madiambal Diagne ak jëfam yaa xam mbay ak jëfam nga gis fi yeneen ci ay référence nga gis ci ñoo xam ne nii dañuy wëy di siggi ba faaw ana Moustapha Diop Walfadjri ana Mame Birame Wathie ana l'incontournable Pape Alé Niang ana Ngoné Saliou Diop ana Feuz bu Bour ana Bour ci boppam ana Salma Ibrahima Fall sama nawle la grande Salma ana ñooñu tey dañuy siggi xool ci kaw ñooñu noonu dañuy bindu ci histoire presse Sénégal ndax lépp ci nettali lay mujj mais seen ginnaaw nettali bi du ñaaw gàcce ngaalaama yéen gàcce ngaalaama yéen hommes et yi nekkoon ci presse bi bi nga xam ne dëgg rek ngeen doon taxawal gàcce ngaalaama yéen hommes et femmes yi nga xam ne li leen taxoon a jóg mooy seen siggimu réew li leen taxoon a jóg mooy souveraineté li leen taxoon a jóg mooy démocratie li leen taxoon a jóg mooy tay jii askanu senegal am ndam siggi fii lay commencé di leen jaajëfal jëm ci njeexintal ga di le 25 mars ndax man jàpp naa ne élection yii premier tour ñu tàqalikook lii premier tour laa wax de man man waxuma ay deuxième tour premier tour ñu tàqalikook lii fi nekk parce que askanu Sénégal mer nañu mer goo xam ne bu ñu beccee seen njàmbat becc seen mer yi ci urne yii amul ay deuxième tour layam-layam dafa am premier tour ñu yëkkati leen ba ci kaw daaj leen ci suuf Sénégal jëm kanam Sénégal am ndam Sénégal am jàmm ak salaam nit dootul dox di tiit nit dootul toog këram di wax ne léegi ñu jël si ma dootuñu fi nekk di boole ay doomu aadama ak ay policiers ñu leen di toroxal di leen torturer duñ leen tey yóbbu di leen mandat de dépôt ci lu ñu deful dara loolu lépp jeex na tey tey dootoo dox ci mbedd mi wala sax ngay toog ay fani fan boo liggéeyul doo génn boo liggéey jee sa fit sa fit du dal ndax yaa ngi bàyyi sa waa kër bàyyi sa ay doom insécurité say doom buñ dee jàngi sax doo nekk ak jàmm yow boo génnee foo toll nit ñaa ngi naan la làqatul nëbbatul defal lii ci sa dëkk boo xam ne kenn ëppalewu fa papa ak yaay yépp fi lañu fekk baax ñu jàpp la fi xatal la fi tey yéen la Sénégal di mel ni pantre ci yéen yéen na Sénégal di xat gis nga fayantoo bi du leen lu dul bàyyi leen ak seen gàcce bàyyi leen ak seen gàcce ëllëg ki sibir ñu weetoo ko gars yi rek mbégte mi rek mbégte mi rek Sénégal jëm kanam incha allahu rabbi di leen gërëm di leen sant yéen ñi toppoon ba heure bii ñu ngi leen di gërëm di leen sant gërëm bi du yem fii ndax suba yeneen ci ay live ak ginnaaw suba ak ginnaaw suba yeneen ci ay live day ñëw incha allahu rabbi jërë ngeen jëf ci safoo bi topp ak faale ba beneen yoon topp leen live bi rek.